asalaamaaleykum mbokki safo bi ñaari waxtu jot na sëngam bisimila ci xibaaru dikki bëccëg gi jikalaamee wolof ma mbégte mu rëy janoo ceeg sama naataango Pape Malick Thiam maa ngi lay nuyu Suzanne maa ngi lay fay maa ngi nuyu tamit bépp téléspectateur bu ñuy seetaan ay ci ñu jukki ponk yu gën a fës. ponk yu gën a fës Suzanne ñett la bi ñuy tàmbalee moom mooy président Bassirou fay Faye téeméeri euh, bés ngi nii nag euh, téeméeri fan euh, mu nekk ci lu nga xamante ne moom moo di nguur gi moom ak Ousmane Sonko am na ñu ci d'accord ci lu mu defagul am na ñoo xamante ne tamit nee na ñoom ànd na ci ñu ci gën a fës ñu waa benn Bokk Yaakaar Abdoul Mbaye Abdou Mbow di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar jiite leen moom bind na benn bataaxal bu gudd ŋàññi euh, li nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko def nañu ko loolu nañ ci ñëw euh, bu euh, xibaar yi ñu koy tàmbali beneen bi gën a fës moom mooy Ismaïla Madior Fall bërki démb muy woon fii si suñuy locaux 7TV moom bu mu jàkkaarloog Maïmouna Ndour Faye wax ci mbiru Fulbert Sambou ak Didier Badji lu soxal loi d'amnistie moom bi mu fi jógee weddi ba mu set nee na mu ngi tuub lu mu waxoon loolu tamit dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi bi nga xamante tënk bu euh, mujj bi mooy coow lu jur conseil supérieur magistrature président Bassirou Diomaye Faye ndax dina nekk ci biir wala dafay génn moom démb bi nga xamante ni dalal na ñi bindoon rapport euh, bi soxol ci wàllu justice euh, moom wax na lu leer naa ñi nee na delloo na lépp ci magistrat yi lu ñu wax rek loolu la ñuy def loolu yëpp dinañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV dañu koy tàmbalee téeméeri fan yi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye def na ko ci bopp nguur ak Sénégal bu baax dégg ne nag am na kaddu yu bëri ci daal di jug njiital groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di Abdou Mbow daal na ca kii kaddu nee na daal yaakaar gu tas kat lañ ci daal di am jàpp sax ne eh, li nga xam ne moo dal Diomaye ak Sonko mooy dëgg-dëgg ñu ngi gis lan mooy nguur. Euh, nee nañu euh, ñoom député yi bokk Benno Bokk Yaakaar bëri na lu bëri euh, bëri na loo xamante ni Ousmane sunko wala sax Bassirou Diomaye Faye ñoom ñu ngi koy def teguñu ko ci benn yoon ñoom nag ñu ngi koy ŋaññi ñu ne lu ñu diggee woon ci li nga xamante ni mooy élection yi ñoom defaguñ ci dara lu ñu war a def rek mooy liggéey taxawal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi. si ba taxal bi ñu bind groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fësal bilan bu doy waar ñeel rek téeméeri fan yu njëkk ba Bassirou Diomaye Faye si boppu nguur gi ñoom gis nañu ni kilifa yu yees yi jiite réew mi jamono gi xamuñu fu ñuy teg seen tànk dañuy tandute ndax ñu dara lu leer dara loo xam ne dal na xelu askan wi si kàddu yi Abdou Mbow ak ñi mu àndal Bassirou Diomaye Faye ak Sonko la ñu diggee woon bi ñuy def campagne électorale dañoo ñëw ba dugg si nguur gi xam ne li ñu doon wax dara teguwu si li ñuy def yëpp du lenn lu dul nëpp seen ñàkk mën a warmaal li nga xam ne diggee nañu ko ak askan wi ñoom député yu bennoo ñoo ngi xam le ni mbetteel gu rëy a tàmbalee dapp ñu bëri saaskan askan wi ñi nga xam ne ñoo fal bile nguur gu yees te balaa yàgg daañu xam ne lañ leen doon wax yépp ay naxe mbaay la amul dara lu si tegu ñu gis ne tàggatoo bi yàggatul léegi lépp leer naññ ñu gis ni daal tàmbali gi neexul ñoom waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ak itu wutegu yaatoo yaato si diggante la nga xam ne moom la ñu woon ni dinañ ko def ak lii ñu tàmbalee di jëfee lu mel ni wàññi li mu ministre waa benn bokk yaakaar gis nañu ni des na tuuti conseil des ministres sa Dakar Arena lañ koy amalee ndax rek ay ministre conseiller secrétaire d'état yoo xam ne ñu ngi wéy rek di leen fal ba rek xaajatuñu ci taabalu conseil bi nee na njiit gis nañu ni appel à bi ñu doon wote sa benn lu ni mel dañ ko teg ci suuf ni ki contrat pétrole ak gaz biñ ne woon dinañ ko saytuwaat jaarale ko ci yoon ñu gis ni daal nguur gi jamono gi ñaari nit ñoo koy jiite mu di Sonko ak Jomaay te lu ni mel mën a tàbbil réew mi ci guuta ñoo ngi ŋàññi it ñàkk a wormaal dige giñ ne woon danañ fi jëlee ngóor jigéen di homosexualité Abdou Mbow ak ñi mu àndal tudd nañu it xeex bi dox jamono gi si diggante yenn organe de presse yi ak nguur geek compte yi nga xam ne dañu ko bloqué ak it convention yi ñu gàntal li ñuy ñaan Ousmane Sonko mi jiite gouvernement bi mooy rekk mu jublu si bëgg-bëgg askan bi uti saafara si seeni tawat jëlit ay responsabilité dem def li di déclaration de politique générale am réerum ñaari sandarme yi te sax am na ci ñàkk seen bakkan di baat yi ak Fulbert Sambou Ismaïla Madior fal mi nga xam ne am na la mu ca waxoon lu yàggulu dara dikkaat na ca jéggalu askanu Sénégal mu nekkoon jëriñ ji yor wàllu yoon bërki dem maa ngi ko doon wax muy woon su ñëwee lu ko jàkkaarloo may mën lu moom nag euh, ginnaaw bu mu waxee euh, lu mu wax euh, ba noppi ni mbiru Fulbert Sambou ak ñaari gendarme yi nga xamante ni kenn gisul leen woon ñoom ak loi d'amnistie bi ñu ci defoon loolu yëpp euh, mu jur coow lu bëre euh, ñu ànd ci ak Papa Banda Gaye ci chaîne de télévision 7TV jàkkaarloog Maïmouna Ndour Faye Ismaïla Madior Fall daal dina wax lii mais l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou c'est pris en charge dans la loi d'amnistie. on peut le parce que loi d'amnistie dafa large on a les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à donc en principe c'est inclus là-dedans. mu dib tontu boo xam ni daal na jur coow ak i tontu tukkee ci premier ministre ba woon di Aminata Touré. Ismaïla jox Fall dafa war a leeral sénégalais yi ban lien moo am diggante disparition ñaari gendarme yi ak événement politique yi nga xamante ne dañ leen am amnistie loolu yëpp nag dafa war a tax rek ñu xoolaat li di loi d'amnistie bi. waaye itam ci Amadou Ba député. bokk ci Pastef Ismaïla Madior Fall dafa fësal taxawaayu nguur gi fi newoon doon wax ni dañoo lab ci ab accident lii dafay firndeel nii la leen réeral mbirum politique la ak naka sudul noonu naka noonu journaliste bii di ba fay jàpp ni wax ji lu garaaw la mu di wax joo xam ni Ismaïla Madior Fall daal dina ci jéggalu jaaree ko ci page Facebook am ministre de la justice ba woon daal dina xamle ni lile ab tontu bu mu tayul la xam ne itam ni mbir moomee laalewul dara ak loi sergent Fulbert Sambou nekkoon gendarme ñu affecté ko ci inspection générale d'État adjudant chef Didier Badji di woon sous-officier te direction du renseignement militaire ñu réeroon ci anam bu yéeme ci weeru novembre atum 2022 ci nguuruk Macky Sall seeni dàll ak seeni téléphone ñu fekkoon ko ci tefesu Cap Manuel ci jamono bi nga xamee ni enquête bi yéexoon na ñu xamle woon ni amaana dañoo lapp waaye mu di loo xam ni seeni ñoñ gëmuñu ko woon benn yoon. uul maanaam vague. naka lay munee génn ñaari ponkal ay soldats de surcroît yóbbu leen ci géej ga te bàyyi fa seeni dàll ak seeni portable. lum ci mën di doon wax ju ni mel daal na lëndëmalaat xelu ñenn ñi ba noppi indiwaat coow ci loi d'amnistie bi nga xam ni woote woon nañ ko laata élection présidentielle bu atum 2024. na xaritu eh, ñooy gendarme nga xam ne daanaka réer nañu ñëpp naan ñàkk nañ seen bakkan eh, jàpp leen ne ñu ngi leen a jege nee nañu daal dinañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey jii ci àjjuma ji. Eh, jàkkaarloo boo xamante ni sax ñoom lu ñu wax ñoo ñooy dañuy tontu ki fi nekkoon ministre du ma jox fal loolu dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen i xibaar. waxtaan wi ñu sumboon wàllum yoon dëxëñ ci ay xalaat ngir xool naka lañ koy coppee gën koo taaral waaye itam fexe ba moom boppam ndax yoon nañu ko ŋàññee woon bari na lël woon ñamaloon ko ci diwaanu Diamniadio ni ki démb nag bañ ca noppee ba dëxëñ ko ci ab téere toll ci ñeenti téeméer ci ay kilifa ñenn ñi di ay magistrat ñenn ñi ay borom yi xam-xam am ñoo xam ne itam ci seen biir la ñu bokk. lu mu wax rek moom mooy dina ci ñëwaat bu baax ginnaaw ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy ñoom lay liggéeyal bu ci taxawaatee pour mën a jox li nga xam xamante ni moo di justice Sénégal euh, taxawaay bu am solo ñu gannaaw benn weer bu commission scientifique bi tàmbalee liggéey ci recommandation yu tukkee ci assise nationale de la justice jébbal na njiitu mu Sénégal rapport général bi. l'exercice n'était pas simple il fallait rendre digeste et compréhensive trois sources de données à partir de ces informations multiples il fallait rester fidèle à la fois aux termes de référence et à la quintessence des recommandations formulées. ñu xaatim ko ci juróom-ñett fukk ak ñeent xët bileb rapport tënk xalaat yu jóge ci commission réforme commission modernisation plateforme jubbanti waaye tamit ak ñeneen ñi nga xam ne ni ñoo def ay contribution écrite di leen wax na rek liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci claque ci ci tirwaar yi ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man xam naa fan laa jaar ba toog fii. mu di fan fanweeri recommandation ngir gën a jubaale justice Sénégal la ak maréew yi. toutes les réformes qui n'ont pas d'incidence financière sur lesquelles nit ñi déggoo nañu ci mën nañ commencer dès demain les travaux pour pour pour pour pour pour euh, pour matérialiser leen réforme yi nga xam te dafa war a jur ay dépenses réew mi dafa am fu mu toll. lu ñeel nag conseil supérieur de la magistrature njiitu réew mi bëgg cee déglu d'abord xalaat yëpp balaa mu cee yey yàbbi bu fekkee ne les arguments du plus grand nombre ont plus de poids par rapport à la pertinance xam leen ne man je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature je n'en fais pas une obsession mais je pense que li tax magistrat yi bëgg président toog fa ça mérite d'être ñaari at yi ni yoon di joxe ci biir réew mi moom la ñuy waxtaanee saa su ne njiitu réew mu senegal jàpp ni nag bu ñu jëmmalee yile réforme dina tax ba yoon gën a tëddee njaaxaanaay. dañuy des ci ndaje googu Mamadou Kanté ñi ci réew mi Bassirou Diomaye Faye addu jëmale ci conseil de la magistrature jàpp ne daal ba xam dina ca tegam tànkam am déet loolee dib laaj waaye daal la nga xam ne indi na ko ci ay tontu leerul. Euh, lu tax leerul euh, li la wax nee na moom xoolul mba xam dina génn wala dafay toog fi nga xamante ni moo di conseil supérieur de la magistrature euh, waxee wane na li nga xam ne moo di taxawaayam ki nga xam ne moo di Mamadou si Albert nag di analyste politique lu mu wax dafa leer ne président Bassirou Diomaye fay dafa war a génn fii di conseil supérieur de la magistrature ñu ànd si ak Djibril Diallo. Je tiens ni à rester ni à sortir. position njiitu réew mii nag mi nga xam ne leerul yéen a fës si aljuma ji wax nañ ci mu mel ni nag magistrat yi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo bëggul kii di njiitu réew réewum Bassirou ay fay jóge ci conseil supérieur de la magistrature mu ne de ngir démocratie bi mun a dox waaye itam justice bi moom boppam faw ko njiitu réew mi jóge fa bu ñu sukkandiku ci Mamadou Sy Albert. lu gën a jaadu mooy mu génn ci conseil supérieur de la magistrature. justice mën a nekk une justice indépendante def naa loolu daal euh, la ñu xaar mais su ko deful loolu dina indi ay jafe-jafe euh, xëy na sax nit ñi duñu gëmati li mu li mu digoon. hésitation yi nag ana lan moo ko waral ci ponk goo xam ne sax promesse électorale la woon mu mel ni nag enjeu politique yi ndax nag loolu bu sottee régime présidentialisme bi dina daanu njiitu réew mi dootul amati. doole bi ñu ko xamee woon gannaaw bu Sénégal amee indépendance ba léegi. président mënatul du en tout cas du am doole pour euh, su buggoon par exemple arrêter opposant mais justice mën na bañ su su buggoon régler problème personnel justice day bañ loolu moo tax il faut mu génn foofu pour justice bi am indépendance comme moom président ni mu amee indépendance. bu ñu sukkandikoo ci sunu analyste politique njiitu réew mi bu jogee ci conseil supérieur de la magistrature loolee dina gën a libérer démocratie bu Sénégal waaye it séparation des pouvoirs bi ñuy wax saa su ne dina doon lu wér. loolu bu amee nag Mamadou Sy Albert di ñaax rek conseil ba mu ubbil ay buntam yeneen doomu réew ma ñu bokk ci yeneen i métier yu ci mel ni ki universitaire ya journaliste ya ak société civile jiitu réew mi Bassirou Diomaye fay dafa war a génn ci conseil supérieur de la magistrature loolee euh, mooy kadduk Alioune Badara Diouf. Euh, moom Alioune Badara Diouf nekkoon fi député euh, Benno Bokk Yaakaar lu mu wax moom mooy président Bassirou Diomaye fay moom moo diggee woon loolu comme que diggee na ko da ko war a def ñu déglu ko. man dama defee ne foofu président bi man lu mu wax convaincre ma nii wii nii non non non non franchement daf see war a génn. parce que loolu lañ jaayoon askan wi loolu lañ leen waxoon ne leen ñoom bu ñu faloo dañuy génn seen loxo si li nga xamante ne moom mooy justice rawatina conseil euh, supérieur de la magistrature nañ nañ si génn amul amul layam layam yi nañ ci génn les juges de liberté oui on est d'accord comme ça se passe euh, dans certains pays d'Europe et d'Amérique yooyu yu am solo la yoo xamante ne dañ ko war a jëfandikoo euh, doxal ko mais gis nañu ne nouvelle autorité yi ah dañ bëgg a deltu ginnaaw si li nga xamante ne moom mooy réforme yi parce que bu ñu waxee ne yi am incidence financière dañuy taxaw ay conseil supérieur de la magistrature bu dee majorité bi nangam non les les magistrats sont divisés ñi nee nañ na génn ñenn ñi nee nañ bu mu génn mais ñoom ñoo ñu waxoon ne doon dañ siy génn ba set si nañu génn un point un tiré coowal déclaration de politique générale bu Elimane Diorny du Ousmane Sonko jàppaleen ne Birama Khoudia bokk ci ñoom di secrétaire général bu PASTEF moom mi nag daanaka euh, moo daanaka toftalu sax ci kilifteef googee daan na fësal ne Ousmane Sonko bañul nag dem rek ci pencum ndawi réew ma daal ko fay defee loolee nag lam ca nam rek moo di ñu indi coppite ci règlement intérieur. Euh, nee na Ousmane Sonko euh, wax nañu lu mu wax nit yi dégg nañ ko lu mu bind tamit umpalewul kenn. Euh, lu des rek mooy waa assemblée nationale ñoom ñoo ci des ñoom ñoo war a def liggéey bi nga xamante ni euh, mooy tax ba euh, kii di njiitu gouvernement bi ñëw ci assemblée nationale ñu teewlu ko. mais Ousmane Sonko mosul bañ def déclaration de politique générale dañu ko signalé nii règlement intérieur ba dafa am lu ci baaxul mu ni nañ ko rectifier wax jox leen délai nag pour ñu rectifier que rapidement parce que bu ñu ko deful dina ko def devant le peuple ñoom ñëpp ñu daw nag mu lancé daal di nekk da te moom. loolu daf ko permettre mu continuer di liggéey parce que dafa yore réew réew dafa diis du loo nga xam ne da ngay nekk di polémique à chaque fois moom nag da leen di sànni benn yàq ñu daw di kii moom bu ko defee mu avancé bu ñu geestoo seen ko mu sore di ko sànni baat fekk na moom avancé na c'est ça qu'il a l'habitude de faire et il l'a fait aujourd'hui euh, donc il dina def déclaration de politique générale bu fekkee ni rectifier nañu euh, le règlement te am nañu introduire lu mel noonu donc dinañ ko rectifier et dina ko def règlement intérieur bi du prétexte c'est-à-dire nous sommes régaliens c'est-à-dire lépp luy jaar ci yoon dañ koy topp euh, defe ko ñu ko war a defee du ñu violer benn réglement bu fekkee ni mën nañ ko defar ba mu baax on donne autant euh, le temps au gens de faire ça Boubacar Camara ni ki démb mu ne woon ganuk Maimouna Ndour Faye ci l'invité de MNF daane addu jëmale ci ponk yu bari rawatina ci wàllum koom. Euh, moom Boubacar Camara àdduna ci wàllu koom wax ne euh, wax ci euh, mbir bi nga xamante moo soxla 450 milliards francs CFA yi nga xam ne état Sénégal lebi woon na ko ci wàllu eurobond moom nag nee na leb bu bari bi baaxul ci Sénégal. boroom xaalis yi dañoo barele ba nga xam ne dañ koo dajale ah, teg ko ku bëgg a ñu lebal la. mais bu ñu lay lebal li ñu ciy teg dafay bare ah ba pare diir bi ñu lay laaj pour nga fay dafay gàtt te boo fayul pexe yi ñu am pour sonal la dafay bare bu fekkee ne da nga nekk dëkk boo xam ne bii ah, amuloo tellement doole ah dañuy bañ nga jël ko parce que li ngay fayeeku ah, taux bi liñ ci teg dafa bare te bu fekkee da nga leb ci circuit yu normal yi taux bi du bare da ngay nekk loolu la ñuy wax taux concessionnel pour aider la nga def développement et puis day day ay durée yu yu bare souvent nag dëkk yi dañ koy jël bu ñu ñàkkee pexe. li bon mooy nga def ko euh, ku ñàkk jom rek parce que ñoom sax yoo ñu lebal ñoom moom ñëwal parce que xam nañu seen xaalis dinañ ko recouvrer looloo tax euh, ñu bare dañuy éviter di ko def même bailleurs yi dañ koy éviter ah boo jëlee lu ëpp sax ñu ne la non dañ yóbbu ko euh, ci beneen budget bi et tout parce que comme danga koy fay li ngay fay aussi warul yàq ñi lay lebal ci taux bu gën a simple. fan yi di mujj ay coow jub ñeel opération de désencombrement yi dox ci diggante marchand ambulant yi ak kilifa yi rawatina ñi nga xam ne ñu jiite bokk moomeel yi bu ñu sukkandikoo ci ab Abdou mbay war nañ cee tegi xalaat bu ko defee ñu saafara yëf yi moom mi nga xamante ne moo nekkoon euh, di jiite euh, marché yi mu ngi woo euh, bépp marchand ambulant ñi nga xamante ne ñoo nekk jaaykat yi ngi ñu tënku ci lu nga xamante ni moom la kilifa yi wax bu ko defee ñu xool nan lañu def ba marchand ambulant yi mën a dellu fu ñu am fu ñu leen yóbbu ñu liggéey ñu déglu ko. léegi man lu ma xalaat mooy déjà sama xam-xam bu gàtt mooy état bi na woote ay waxtaan yu yaatu mais waxtaan yi nag nu bañ ko def comme waxtaan yu ñu daan def ay parce que tey ñun dañuy consertation invité ay nangam non noonu woo xale yi ñu nekk di liggéey si loolu xam nga xam ne ñoom noo siy nekk suba ak ngoon ñu waxtaan ak ñoom bu nu xeeb jaaykatu gerte bi bu nu xeeb jaaykatu euh, kii bi nanu jël ñëpp déglu leen taataan seen xalaat parce que tant yaa ngi am sa xalaat dafa ne yow sa xalaat moo baax rek sa xalaat boobu baaxul. soo waroon waxtaanee xalaat ba léegi état aussi entendant tendant mun na réfléchir man dama joxe xalaat boobu ak expérience ma am euh, ay espace de vente communaux wu tax si communaux parce que képp kuy jaay am nga foo taxaw foo taxaw lan la commune la donc pourquoi pas nu waxtaan ak paysagiste yi ak urbaniste yi ñu seen xam-xam màcc si aménagement nu xool nan nanu mën créer ay espace de vente aménagé yoo xam ne xale yi dañ fay à partir de là suñ ko dafee ba xale yi seen xel dal nu daal di nag indi office formation professionnelle à côté noonu jël former leen directement si métier yoo xam ne day amal njëriñ askan bi à partir de là nag foofu nanu mën indee xalaat bu baax bu premier ministre mooy DER parce que ku nu tey jël identifier la former la DER dafa lay accompagner njàng beek jàngale bi ci tënk examen BFM daal nañu koy dàq ci di rek juróomi fan ndax ñu ngi ko dëdmaloon alxames fukki fan ak juróom-ñett ah, ci weer sulet euh, ñu fas yéene ko amal altine euh, ñaar fukki ak ñaar ci weer wi. bataaxal boobu nag ki nga moo di jëwriñ yor wàllu njàng jàngale bi moom Moustapha Mama Guirassy moom moo ko wax euh, di wax rek ne examen boobule di BFM lu toll ci téeméer rek lu ëpp ci téeméer ak juróom-ñeent fukki candidat ñoom ñoo ci war a dem. xibaaru bi tëréew yi ci tënk ca diwaanu Niamey capitale wu Niger jàpp ne nag noppi nañ ngir daal di dalal euh, sommet wu njëkk wu kuréel gi nga xam ne moo ëmb réew yi nekk ci Sahel wile nga xam ne bànqaas googee ñu ngi ko daal di jëmmal weerum septembre atum 2023 Euh, Assimi Goïta ki nga xamante moo di Ibrahim Traoré ak euh, général Abdourahmane Tiani di njiitu réew bu Niger ñoom ñoo war a tase foofu si Niamey ci Niger euh, ginnaaw bu nga xamante ni dimanche looy waa CEDEAO war tase ci Abuja si Nigeria ngir waxtaanee lu soxal ci at mii di ñëw lan la waa CEDEAO war a def ñoom waa AES mooy Alliance État Sahel soxal Burkina Faso Niger ak Mali waxtaanee bi nag ndaje ndaje bi mooy ndaje mu njëkk ci ñetti dëkk yooyu nan lañu ñu mën a def ba andi kaaraange ci seen ay biiri dëkk Pape Mari addu ci wàllum tàggat yaram wax ci Copa America wile Emiliano Martinez daana wane pom nag ci tiro bu a tax nag ba dimbali nag réewam di Argentine tàbbi ci demi-finale yi. Euh, Argentine euh, moom euh, équipe bu Lionel Messi bi moom moo tax nga xamante ni éliminé ñi di waa Équateur te final ci final bi nga xamante ni quart de finale Copa America bi nga xamante ni États-Unis lay am Lionel Messi nag moom dafa raté. Euh, benn penalty euh, ci ngoon gi euh, ñu ngi wax ne ñi di Venezuela ak Canada ñoo war a tase Colombie war a jongante ak wa Panama. jaara fii teelu été ne dala ak jaam yéen kaay bari di kaat nañ seen xët bu njëkk jëbbal gu ñu rapport assises nga xam ne moo amoon ca ba loolee jox nañ ko Bassirou Diomaye wax ne daal lépp lu nga xam ne am na consensus bu wérte wóor loolee daan ko appliqué dikkee ne daal joxe na ay garantie ne fanweer recommandation moo tukki ci assises yi waaye tamit gis ne kat jamono ji jot na ñu indi ay ne kat moom wax ne daal am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne kat moom obsession la am ci loo xam ne kat dafa bëgg a toog ci waaye tamit daanaka sax ñu ëpp avocat yi waaye Fatick Kaffrine Sédhiou Matam daanaka sax ñoom amuñu dara dafa mel ni dañ leen a fàtte waaye tam gis ne kat yaa dëgg daal moo am ci liggéey bi ba bu ñu sukkandikoo ci le ne daal ci application recommandation yee daanaka sax jomaay moom daanaka sax bu doon day wax ca kaw ca suuf lay wax ndax dafa mel ni carte consensus daal la ñàkk am ci li xam ne kat mooy conseil supérieur magistrature bi ba ne daal dara leeru ca waaye tam ci observateur ne justice bi nag moom wàllum indépendance kat ci la dëgmal professeur Babacar nee na carte am na waxtaan boo xam ne jib na ci diggante ci wàllu woowee daal ci rapport bi le les économies kat jomaay ma fay dale xel ne daal du def benn jëfe yuqu ñur yoo xam ne day tax rek mu toog ci donkaasi gi ndax xam ne la ko yóbbu pale waaye tam ci les échos ci Abdou Mbow ci boppam moo yàq mel ngaan ne jiw di jomaay ak Sonko ci téeméeri fan yi nga xam ne toog nañ ci donkaasi gi moom Abdou Mbow nee na Sénégal daanaka sax métti na lool seen dund dañ koy méngaleeg dund ko wer yaan la daal di wax ne kat dëgg la ndax dafa mel ni gaalub looto bi nga xam ne kat moo defoon juróom fukki migrant mel ni kuy daw li nga xam ne kat mooy dund ko wer yaan gi ñoom dañoo daal di suux ca fa nga xam ne kat mooy waaxu ndar l'info ci li nga xam ne mooy ancien nekkoon di Ismaïla Madior Fall moom nag daanaka ab bomb laal da daal di tàkkal ndax ci mbiri Didier Badji Fulbert Samb moom dafa mel ni kat làmmeñ bee tërëf ndax laataanee daal loole kat ab lapsus la ndax ñu bëri dane kot lii nag moom jar nag leeral ba tey libération dikkaat ci biir di am na ci février 2024 waa DSMP ni mukk du ci am waaye gis ne ne ci ancien gouvernement bi daanaka moo weñ seen da nga ko def fasaasa ndax gisee ne bâtiment ba tey ay weer nga nii doxul ci wàllum tàggee Stade Côte d'Ivoire dikkaat na ci tirage au sort bi nga xam ne moo ñeel éliminatoire CAN 2025 Sénégal mi nga xam ne moo bokk poule ak Malawi Burundi ak équipe bi nga xam ne mooy Burkina Faso ci wàllum Euro 2024 tey jii nag moom dana gën a métti lool ci Allemagne ak ci diggante ak Espagne ndax daanaka sax final dëgg la mooy di xaar muy ñaari ponkal pire da ngeen mbokk yi ñaar fukki simili ak juróom ma bootu ci ñaari waxtu jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfal na baax ci tawlu bi ànd beeg seet TV amoon mbégte mu rëy janoo ci ak Pape Malick Thiam euh, mbégte bi Suzanne man tamit euh, amoon naa ko euh, torop ñuy sant bépp téléspectateur bu ñu doon seetaan dig daje ci kanam tuuti xibaar yi ci tënk juróom waxtu lay doon ci kàllaama nasaraan ak wolof cee ngi def